mbokk yi yéen a ngi wéy di nu topp ci saabal tomb ak ci saa Touba TV eh, lu soxla xibaar yi ba léegi jege ñaaleeg eh, Maham Diallo Aïssata Tall Sall weddi na kàddu yu Ousmane Sonko yi ginnaaw kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati démb xamle ne eh, atikat bi di Omar maxam Diallo ci gaa yi. ay Tall Sall yi la bokk moom soxna si nag weddi na ko ba mu set wecci bu nu sukkandikoo ci soxna Aïssata Tall Sall Ousmane Sonko li mu jublu ci loolu du lenn lu dul bëgg gëm loo nit ñi ne dañu ko koote euh, loolu tax sax moom Ousmane Sonko di wax ne ma xam am na doom joo xam ne ay Tall Sall la tudd Euh, moom soxna si yokk ci ne wax ju gën a wér di lii amul ndax xamuma fenn Maham Diallo mësuma ko jox loxo euh, mësuma dajeeg moom euh, mësuma koo gis mësuma wax ak moom donte sax dafa war ci man ma jox cër attekat yépp dama doon leeral rek nag ngir dëgg ak mboor na ko ñépp xame noonu saabal tomb net